xeexal na diine nit ku baax di imam Alioune Badara Ndao moo génn àdduna journal bi di Rewmi Quotidien nee na jàngoro ju ndaw moo ko tëraloona hôpital Fana fa la génne àdduna dans le coma la nekkoon journal bi ne na doomu daara dem na wuy jina boromama yéen kaay gi di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu imam Alioune Badara Ndao ginnaaw bi mu génnee àdduna démb la ñu ko jébbal boromam ci ngaan ci Kaolack yéen kaay gi di 24 heures nee na Alioune Badara Ndao amoon na lu toll ci juróom benn fukki ak ñaar maanaam 62 ans guddig jàpp talaata ci la wuy ci boromama ci hôpital alfana mu nekk loo xam ne lu tiis la askanu Sénégal rawatina nitu diine doomu daara daat nañuy sëngeem ci génn ak àdduna alin Alioune Badara Ndaw yéene kaay gi de la refey nee na imaam dem na dafa nekkoon nag dans le ci service cardiologie bu hôpital Fann journal bii de la réveil quotidien nee na imaam Alioune Badara Ndaw ginnaaw bi ñu ko tuumalee lu jëm ci wàllum terrorisme jël ko dugal ko ci kasu bi génne ko 2018 ba léegi moom imaam Alioune Badara Ndaw dafa amoon ay jafe ci lu jëm ci wàllum wér gi yaramam bi mu génnee ci kasu yéene kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Alioune Badara Ndao ginnaaw nag bi ñu ko tuumalee lu jëm ci wàllum terrorisme daal di koy jël dugal ko ci kasu bi lu toll ci ñaari at ak juróom-ñeent ci ay weer ginnaaw nag bi ñu ko atee dañu koo wax na ko yow defoo dara defoo dara waaye nag li nga xamante ni moom la Alioune Badara Ndao nag daj ci kasu bi loolee moo garaawa loole nag moo day waxaar ma ne la moom imaam Alioune Badara Ndao nettali woon na nee na ci néeg bu lëndëm moom lañ ko dugaloon waaye tamit néeg bu te xat néeg boo xamante ni xet gu bon koo xam ne sax weñ yi mën a la xet gu bon gi da doon rey weñ yee torturé ko loole la imaam Alioune Badara nag waxoon na ginnaaw bi mu génnee ci kasu bi journal bii di bés bi nee na nit ku dëggu nit la koo xamante ni ku juste moom moo tema yéen a kaay gi de la témoin nee na conférencier ba xutbakat ba ki nga xamante ni moo doon jàmmarloo ak lépp loo xam ne ay ñaawteef la rawatina lu jëm ci wàllum LGBT imaam Alioune Badara Ndaw bokkoon na si ñi nga xam ne doon nañu ko bañ ak lu jëm ci wàllum formation yéen a kaay gi di source nee na nag ki nga xam ne moo doon xeexal l'islam di Alioune Badara Ndaw wuy ji na yàlla sunu borom yéene kaay gi di sa news bàyyi mbir moome nag wax ci lu jëm ci wàllum commerce bi ak nag njëg yi nga xam ne moo yokk ba maara day taale ndax Sénégal am na ministre du commerce loole nag la ñu war a laaj ndax ki nga xam ne mooy ministre du commerce di Assome Diatta moom jamono ji mën nañoo wax ne dafa tëlee ndax nag bëri na ay yoon yoon yoo xam ne moom Assome Diatta dànkaafu na ñi nga xam ne ñooy commerçant yi waaye ba léegi njëg yaa ngi yokk ba maara day taale xam nga Sénégal bu ñu demee ba kilo ñebbe di jar mille six cent loolee xam ngeen ne doy na war te nag ma ne la gis nga Sénégal yi ñoo tey laajte ba xam ndax am nañu ministère du commerce yéen kaay gi di la vrai journal nee na njëg yi nga xam ne moo yokk ba maara de tali ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñenn ci askan wi di dund jamono ji dégguñu ci central syndical yi central syndical yi dañoo war a wax te jamono ji kenn déggu leen a yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy nag waxaat ci mbiri Mami Doura Diallo mi nga xam ne moo doon am dooma ca diwaanu Kédougou ñàkk bakkanam taxoon ñu teg loxo ñetti médecin ginnaaw bi ñu leen ñooy waa SAMES ñoom nee na ñu bëgguñu ñu yem si bàyyi leen rek li ñu bëgg mooy ñu setal leen wecc loolee moo tax ñi nga xam ne ñooy waa SAMES SAMES di kuréel goo xam ne dafa ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu wér gi yaram ke ñoom nee na ñu dañuy dem ab grève grèwub ñetti fan maanaam grèwub 72 heures yéen kaay gi da lay zeko nee na ginnaaw bi médecin yi grève ca diiwaanu Kédougou daa di tëj li nga xam ne mooy bloc opératoire bi bi ñu ko tëjee am na juróom benn jigéen ñoo xam ne ñoo bëggoon a am dooma dañu leen a jëlee Kédougou évacuer leen Tamba avant ñu yegg am na ñu doon sax am doom ci yoon wi ci yoon wi am na si ñett ñoo xam ne seeni doom dafa mujjee dëkk daal di delluwaat maanaam ay moor ne yéene kaay gii di wal fajiri xëy dañu xibaara naan ñu waxtu chantage jamono ji jot na diggante PS ak APR ndax nag APR ñoom seen bopp nag amuñu ay député yu doy yéene kay gii di l'observateur nee na député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ci week bi ci week bi député yi benn bokk yaakaar yi 82 députés yi ñoom ñëpp nag dañ leen di guur guur dañ leen di guur guur yóbbu leen nag sali maanaam mbuur lañ leen di yóbbu buñ leen fa yóbbu nag man leen a feere maanaam kenn du rëcc kenn du rëcc su ko defee nag ci altine suba cuuy ñu dugal leen ñoom ñëpp ci benn oto andi leen ci ndakaaru yóbbu leen directement assemblée nationale dañuy bañ kenn jadd jamono ji nag loolee nag moom la benn bokk yaakaar di def ndax ñoom xam na ne bu kenn rëccee rek du baax yéene kaay gi di réew mi ko di jeexee dañu xibaar naan ñu waa Pape Diop bokk gis-gis ak Ousmane Tunkara di activiste bu nekk ci Amérique ñoom ñaar lan moo leen boole journal bi nee na dak en tout cas ñoom ñaar saagante nañ ba seen xol seet Pape Diop mi nga xam ne sax ñeen nañu dañoo jàppoon ne waaw Pape Diop ku yaru la Pape Diop du wax waaw nangam nangama en tout cas li am ba des sall réew mi ko quotidien nee na saaga yu ñaaw yi Pape Diop mii bokk gis-gisa doon saagante ak Ousmane Tunkara ci Amérique bu leen ko jéem a déglu de ndax nag saaga la yu ñaaw yoo xamante ni Pape Diop bett nañu bare bare Ousmane Tunkara nag li nga xam ne moo ko ci Pape Diop mooy jàpp ne Sénégal dem fekki Macky Sall li ko Ousmane Tounkara wax ne danga ngaa wor ba ko ko waxee rek ci la saagi nag commencé kenn ku nekk di dagg di bàyyi yéen a kaay gi de la turbine xëy duñu xibaar naan ñu Sénégal ndëngte yi nga xam ne moo am ci foncier bi ci lu jëm ci wàllum suufa bëri na lool scandale foncier ci Sénégal ma ne la ni ñuy saax-saaxee suuf ci Sénégal moo ñaawa te nag ñi nga xam ne ñooy séddoo suuf si mooy personnalité yi nekk ci nguur gi ak nag ay étranger yéen a kaay gi nee na nag état bu Sénégal dafa jël lu toll ci nag huit mille six cent mètres carrés bëgg koo jox ab promoteur daf ko